yéen yi safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun euh, daleen ak jàmm ci li gën a fës ci tënku euh, xibaar yi dañu koy door ak lu soxal coowal trésor public di détournement bi nga xam ni moom moo fa amoon ak njeexital bi nga xam ni jur na ko te mooy rek njiital comptabilité publique et du trésor euh, di Cheikh tiijaat Diop moom la ñu daal di jëlee ci place ba nga xam ni fa la nekkoon Cheikh Ndiaye di coordonnateur bu trésor bi moom moo ko fa daal di wuutu ñu wëyal ak lu soxal discours bu njiitu réew mi doon amal fanweeri fan benn ci weeru décembre deux mille vingt et un euh, ñu gën see ràññee naka lu soxal secteur bu transport mu xam ne ci nii dina gën a ñoŋal transport en commun bi fii ci ndakaaru teg ci auto autoroute bi nga xam ne nag euh, ñu ko gën a leeral ba mu leer naññ euh, te fii ak juróomi at du am yokkute ci tarif yi ba tey transport maritime àdduna ci mu xamle si ay investissement yu mag a mag rek la ci andi mu bokk ci port minéralier et vraquier bu Bargny Sendou nga xam ni nag léegi liggéey bi daal di àgg ak port bu ndaayaan eh, bi mu bëgg amal eh, te tey ci altine bi ñetti fan ci weeru janvier la ñuy door eh, liggéey bi ci loolu nag mu dolleeku ci autoroute du nord Dakar Tivaouane Saint-Louis ak chemin de fer Dakar Tambacounda bi nga xam ni nag ñoo ngi ci liggéey bi gannaaw loolu àdduna si njàng meek njàngale mi woote na itam jàmm jëmale ci jongante gox goxaat yi nga xam ni moom la ñu jublu teg ci nag ñaaxaat askan nga xam ni nag ñu ngi ci quatrième vague bi ngir rek ñu gën a dëppoo ak mesure barrières yi noonee la ñuy wëyee ci mbas meeg tolluwaayam ngir dëgtal leen xayma ba su tey bi yemoo ko altine ñetti fan ci weeru janvier vingt 2022 waa ministère de la santé ci bataaxal bi ñu fësal xamle nañu ni si junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaari test yi nga xam ni jot nañu koo amal ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ñoom ñoo ci am doomu jàngoro ji si doon leen topp ñett ñi cas importé lañu maanaam dañoo jóge bitim réew daal di koy andi ci réew mi am na nag ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo xam ni gis nañ ci ñoom mbas mi te kenn xamul leen ko wàll wala fa ñu ko jëlee lu toll si téeméer ak fanweer ak ñett si ñi nga xam ni ñoom la feebar bi tëraloon wër nañu amul kenn ku faatu yees ci mbas mi jamono ji nag junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari way tawat ñoo nekk ci loxol docteur yi ñu leen di faj ba léegi si ñoom nag juróom-ñaari ay cas grave lañu ñu wëyal ak xiifal bi nga xam ni prisonniers ya ca prison région bu Koutal euh, moom la ñu nekkee gaawu ba tey euh, ñoom nag ñoo ngi koy wëyal ba tax nag kenn si ñoom euh, daal di lottu ba tax ñu rawale ko ca infirmerie bu prison ba ñoom grévistes yi nag seen lim tollu na ci téeméer ak ñaar fukki doomu aadama li ñuy ñaawlu nag mooy dañoo gis ci seen lekk ya ay sax di ver de terre loole nag tax ñuy ñaawlu bu baax a baax ni nga xam ni noonee la ñu nekkee ci prison boobule ñu wëyal dem ca diwaanu Tambacounda ci benn gox ba fa di Abdou di ardulay bokk ci commune bu misira fofé lu doy warté metti mom mo fa xew ndax ay abey di ay yamb euh, mom mo fa fat ñaay doomu adama ci wéru ko demb gi gannaaw bi nga xamé ni da leena jam euh, ñi ci loru di benn pa bo xamni bu magé la bu maga a mag ak benn soxna bu doon jaay banana abey yoyu nak nee na ñu da songu gox ba jamono yi yépp ñu woyal ak lu soxal tagat yaram combat bi nga xamni mo doxone euh, ci digënté bombardier di B52 ak Balla gay 2 ci gaawu bi ñu weesu bëri woon na coow lool ba tax B52 gannaaw bi nga xamee ni am na ndam ci kaw Balla Gaye 2 par avertissement bii nag di ñaareel bi yoon muy am ndam ci kawam yëkkati na ay kaddu mu xamle ci Lutte TV ni eh, xalaatul woon ñàkk combat eh, bu njëkk boo xam ne def na ko gannaaw bi mu ñàkkee frère eh, nekkoon itam manager am di pap Dia looloo waral rek ba moom Bombardier mu xamle ni lépp rek lu ñu ko santoon daal dina koy def teg ci mu boole woon ko ak teey ak pataaral ndax xamoon na ni arène nationale bi ki muy bëree la gënoon a euh, euh, jege euh, teg ci nit booy bëree ak moom danga koy jox cër ñu wëyal ak lu soxal kan bi Ismaïla Sarr gannaaw bi nga xamee ni Watford dañu ko rek daal di bañ ne du duñu ko libéré teewul ñoo ngi koy xaarte ci altine bi ngir nag mu rejoindre tanière bi moom nag li mu amoon blessure ci genou bi moo tax rek club ba muy tàggatoo bañ ne rek duñu ko daal di waaye ci xibaar yi nga xam ni benn journal sportif fessel nako mom Ismaïla sar amatul ben méttitu boo xam ni sonal na ko taxul mu wër comme ni mu melone Sadio Mané ak Edouard Mendy nak ñom fekk ci nañu tanière bi ñu jall ci Youssou Ndour ngir jeexal tënku xibaar yi mom roi mbalax mom roi du mbalax ci gaaw bi ñu wessu dajalé na nak lu ëpp 15000 doomu adama ci ay sam fofé ci palais des sports bu jam ñaajo di Dakar Arena ambiance bu maga mag nak amon na fa comme ni mu ko tam di défé rek mom Youssou Ndour mu defati mëninam bégal ay fansam ba tax nag ay fansam itam kontaan ci moom ba ba muy ñibbi ñoom ñoo ko daal di gunge la ñu dal keppee jotaayu tënku xibaar yi ma jox leen dig dajee ëllëg incha allah waaye laata boobu wooyee leen di abonné ci 5TV te bu leen fàtte bës ci cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf